Euh, jërëjëf 221 euh, jërëjëf mbokk yi ànd ak ñun dañu seetaan boole ci dañu déglu ginnaaw bi ñu delloo sant suñu borom julli ci sangu-sang yi gërëm waajur yi ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaanal mbokk yëpp yi nga xam ne jamono ji ñu ngi wéy ànd ak ñun dañu seetaan boole ci dañu déglu di ñaan suñu borom lépp loo xam ni fas nañ ko fi wax wala fas nañ ko fi wane mu doon njariñ ci mbokk yi ànd ak ñun di ñu topp boole ci di déglu fii ci 221 people. Mhm. te ku yow nga ne liggéey. est que mën nañu nga produit yi nga yor fii. ak seen bienfait. ak produit bio du lu bees lu yàgg la ndax mag ñi moom lañ doon fajoo daa dund ay at yu bare bare su jamono day dox nag ba ñun ñu dem ba nekk ci di ci doxal li ñuy def rek mooy jàpp naa ne kon euh, puso bi lañu. jëlaat tëggaat ko defar ko ci anam yu sell bu méngoog jamono te dañu toll ci jamono joo xam ni ñëpp a ngi songu dem bio soo demee tugal ñoom lii fii lañ koy jël si ñuy daj ñoom ci kuréel yu bari gis ne tamit ñun dafa di wareef ñu tëggaat ko defar ko ba mu mën a jariñ suñu askan ba mu mën a jariñ suñu réew bio nag lépp daf ciy faj waaye nag lay faj lu ne day fekk nit ki ci boppam nga xam li ko daal donc defar garab yomb na waaye xam nit ki li ko dal mooy mooy bi njëkk ndax nit soo xamee li ko daal rek faj ko dafay jaf day yomb moo tax lii nga gis ni yëpp maa ko defar fii laa ko defaree ci cabinet bi muy cabinet boo xam ni daanaka ñëpp xam nañ ko ndax ñi ñeengi ñuy topp ci seen YouTube bi ñi ñeengi may topp ci bitim réew ñi ñeengi may topp fu ne ci ci lii donc loolu la daal. Mhm. dëgg la parfois dëkk bi dañoo seetlu fii maladie yu bëri. Mhm. am na ñoo xam ne ñu am problème dosage par rapport produit man mhm. jàng na si am te par rapport maladie nga santé yow ndax na mu nga siy xelal mhm. dafa am comme ni nga ko waxee problème mu dosage balaa dosage di ñëw foog problème diagnostic xam nit li ko daal dafay am docteur bi sax di am problème boobu. moo tax souvent nit su ñëwee bu feebaree bu demee hôpital li ñu koy wax demal nga defi analyse analyse yooyu mooy permettre mu interpréter xam ni la daal. léegi nit ki nag mënoo ko faj tànk xamoo li ko dal parce que dafa am feebar yoo xam ne dañu niroo ay mandarga te mandarga boo si sukkandikoo di feju di faj nit am na foo xam ne boo fa tolloo mën nga juum par exemple laa lay jox day mel ni par exemple ki biiram gonflé nit mën na ñëw biiram gonflé nga gis ne biir bi dafa gonflé nga jàpp ne lekk gu bon la nga jox ko lekk mu lekk ko far mu yàq foie am te biir mën na gonflé parce que dafa am problème mu foie biir mën na gonfler parce que dafa lekk lekk gu bon biir mën na gonfler parce que dafa am saan bu dee ci biir waaye yooyu yëpp day doon ay mandarga yu sew yoo xam ni mooy tax nga xam lii la donc par exemple bu dee ki nga xam ne dafa am hépatite bu avancé kooku biiram day niin day mel dañ ci diw diwlin kooku soo ko dee faj di nga xam ni kii mënoo ko faj su boobaa di nga ko teel a yabal kër docteur mais bu dee koo xam ni dafa la naan su ma toogee si tubéy bi ma jiital lu mel ni expert moom ñoo ciy génn kooku da nga xam ni dafa am lu dee ci biir bi li dee ci biir bi mën na doon saan mën na doon leneen leneen rek kooku faj ko di nga xam ni nga koy faj bokkul ak ki nga xam ne dafa lekk lekk gu bon biir bi intoxiqué biir bi gonflé di tàng pour bi di tàng kooku di nga xam ni nga koy faj kon mbiru dosage euh, c'est normal parce que yàlla daf ñu bind bindin woo xam ne dafa sukkandiku ci nattukaay nit lépp léppam nattukaay la su ëppee baaxul si néewee baaxul moo tax soo xoolee chaque jour bu ñuy wax dañ naan mesure lii dafa ëpp donc day mel ni ki amee diabète chiffre la ñuy wax ki amee hépatite chiffre la ñuy wax ki amee tension chiffre la ñuy wax kon dosage ci garab dafa am solo soo ko pertee mën nga indi insuffisance rénale wala nga indi AVC wala leneen moo tax ñuy yëngu ci lii priorité bi mooy nañu jéem a xam garab bu ne lu ko composé jéem a xam ndax kii di ñëw ci man ndax war na koo naan yow mën nga koo bëgg mais sa yaram bëgg ko yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne buñ ci sukkandikoo gëm Euh, ku nekk si ñun di nga mën a dimbali nit ndax kii faj wala kii ñaan yéenam mooy kii ñëw ci mun suñu bee sant donc loolu la daal. Mhm. Ah, ñun dañoo mën a xam say partenaire ndax da ngay liggéey ak yenn euh, euh, wala yenn mhm. structures man fi ma dëkk fii ci Tëngéej par exemple yàlla daf ma dimbali ñëpp dañ ma xam fii laa juddoo moo tax bi ma tàmbalee li may tàmbalee dama ne fii ma dëkk juddoo fi fii laa koy tàmbalee ndax nit si dee li ngay def dëgg la waroo daw feneen ndax li ngay def say mbokk soxla nañ ko. fii fii ma nekk nii fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa koy defee fii laa jàngee fii la samay xarit fii la ñu nekkee moo tax fii laa ko tàmbalee. bi may ubbi lii nag dama dem suñu koñ boobu ñoo ngi dëkk cité millionnaire ci wetu clinique Maymuna suñu kër ma dem luyee néeg def ko foofu jàkkaarloo clinique bi parce que dama gëm ne li may def dëgg la te gëm naa ne am na lu ma ci yàlla may te gëm naa ne tôt ou tard day wasaarewu ñu nekk ci di ci dox mbokk yi di ñëw am di jàmm yi di ñëw ku nekk di ñëw ba tey jii rajo communautaire bi nekk Tëngéej maa fa dugg 2004 la ma fa dugal mooy man euh, dama doon liggéey ci ONG yi su ma benn tante su ma jabaru papa la mooy coordonnateur projet Germe AD moom ci ONG am laa doon liggéey ñi may seetaan sax samay mbokk xam nañu li may wax ndax liggéey naa fii fu mu en 2002 laa laa dugg ci ONG yi en deux ba deux 2003 bi ma ñëwee jël sama attestation yóbbu ko rajo jox ko ñu jël ma parce que. xam nañ ne sama xam-xam loolu la moo tax lépp lu jëm ci wàllu bio ci rajo communautaire bu Tëngéej ca laa nekk ba léegi teewul maa ngi ci yeneen média teewul foofu dama ci am wàll donc nit nag su dee da ngay def dara li ma gëm mooy tàmbalee ko fi nga dëkk moo tax man fu ma fu ma fii aw ma sens interdit loolu ma may may ma xam li ma mën ak li ma mënul donc mën noonu laay dundee moo tax fi ma dëkk macha allah partenaires yi mooy man du ma fekk kenn nit ñi ñoo may fekk si parce que la may jaay mooy jaay boppam loolu laa gëm. donc am na sœur booy génn Thiès booy génn Thiès sœur Marie tubaab bi nekk foofu ñi ñi may seetaan xam nañu loolu man produit yi muy jaay foofu mën naa koy defar te tubaab bi lu tax liggéey ak moom mu sincère mënoon naa ko defaral produit mu dindi fo dindi étiquette bi mais defu ko soo fa demee jënd ci moom maanaam ñiy génn ci oto bi ci ci tali bi la koy teg ñuy jënd soo paree danaan la woowal docteur. man danaan mu woo ma su ma woowee ma expliquer la donc su doon keneen defar dama koy damay defal produit ñu bari internet lu bëri maa koy defal mais ku ma defaral danaan ma bu ma defaral te étiquette defalal man mooy wut étiquette boppam kon donc loolu te loolu dañ koy yóbbu si paroisse yi ñoo ngi may seetaan xam nañ li may wax donc loolu mooy wane ne partenaires yi même en Europe am na ci benn femme boo tudd Christiane Paris la nekk shop yor euh, crème mélange yi bio fe yi man maa koy defar crème yi crème mélange li c'est à base de kigelia crème kigelia lañ koy defaree ak euh, graine ak pi fenugrec huile d'olive quarité bio moom lay femmes yi di utiliser man maa koy defar donc. léegi xam lan mooy njëguñu bi. waaw crème bi nii euh, lii lañ ko defaree li mooy graine ak pi graine ak bi dafa am ay principe actif yoo xam ni solo bi mooy dafay noddan ci ay cër. Euh, suñu mbokk ñaag suñu mbokk ivoiriens yi min nañ ko xam nañ ko ndax dañ koy faratal di ko jëfandikoo lu bari gerte la goo xam ni soo koy lekk daf lay may yaram moo tax ñoom xam nañ ko léegi nag ñi ko xam dañuy jël li boole ko karité di ko diwoo ci yenn parties yi ñu bëgg góor ñu sax dañ koy diwoo donc yenn saa ñu boole ko huile d'olive boole ko graine graine fenugrec di ko boole ak karité ak huile d'olive ak poudre kigelia ñu ko dee wax dambal loolee nag la ñu tëgg nag ñun defar ko moom ngeen fekkoon nii may defar nii donc moo ngeen fekkoon ma teg noonu di ko defar kon nga wax ne nga xam ne donc lu ñuy def nii kii seetaan moo ñu ko gën a mën moo ñu ko gën a xam yàlla daf ñoo teg nattu rek ñu nekk ci di ci dox waaye luñ ci wane am na kuy toog ñu seetaan li mu ci xam sax ñun xamuñu ci par modestie moo tax ñuy ñuy ñuy def lii rek quoi. Mhm. Mhm. waaw dafa am benn partie bu ñëw ndax da ngeen da ngay si wàllu médium ak mhm. interprétation des rêves. est-ce que mën nga ñëw si aspect boobu. waaw interprétation des rêves ci su ma ko waxee mën nañ nangu. ndax nee naa la dañu nekk ci jamono ju lëndëm gu doy waar ba looy wax lu ne rek saa su ne na am ay preuve yu koy firndeel di nga dimbali kiy seetaan ndax du xam euh, émission firi gént man maa ngi nekkoon TFM doon ànd ak Oustaz Abdou Karim Ba ci émission firi gént firi gént man maa ko bind le 28 mars 2008 man maay le concepteur de l' émission waa BGA ñoo ngi may seetaan mën nañ ca dem léegi ubbi cahier bi cahier bi le 28 mars man maa ko bind <coughs> Oustaz man maa ko indi rajo Jokko FM ndax man nekkoon rajo Jokko FM la nekkoon 2003 su ma benn wóllëre moom mooy def su gisee nit ku baax gis ne am na lu may def Oustaz am na lu muy def war nañu lënkaloo def dara en 2006 muy Abdou Karim Diouf jamono ji moom mooy seetaan mu ngi tugal moom moo xamoon Oustaz Abdou ne ma Ablaye am na lu lu ma gis ci yow bëgg naa ngeen ñaar ngeen liggéey c'est en 2006 ba mu ko waxee. jaar si turam dañuy def mejom médium nag du da nga koy wax da ngay ay preuve bi ma ko waxee takk si saa si ma ne ko kat oustaz ki nga mën a booleel xaw ma ko waaye dinaa ko taal ba ñëpp xam ko waaye la ma cay tiit ci biir mooy su ñu demee ba yëf yi sotti mu seppi ma ci te su boobaa dinaa toog mais damay dikkaat ndax foofee dama ca bokk 2006. ma ne ko su ma dégloo bañ a wax dara dinaa ko yóbbu ci tele Youssou Ndour bés di Youssou dina am télé. man dama fay am ñaari parti lay daw maa koy moom <clears throat> dinaa ko dimbali si zaahir ak baatin te foofu fu ci nekk dinaa la am ñu dawal ba 2006 ma indi ko rajo 2009 ma tëdd guddi ñu wan ma yëf yi jot na ma pare mardi émission ak moom 16h di h may ñibbisi ñëw ba sama koñ si cité millionnaire dajeeg Moussa euh, dajeeg Blaise Savaret Blaise Savaret poste bu Medina lay liggéeyee moo ngi ma seetaan. Blaise ñu daje ma ne ko ah Blaise yàlla moo la indi yëf yi mat na moo may setaan ndax post bu Medina lay liggéey Blaise sabar ma ne ko c'était en 2009 ay côté 18 heures ma ne ko Blaise démb dem méjom wan ma ne yow war ngaa bokk ci liy jàpp lii ngir mën wi wasaare wu mu ne ma Ablaye bi may ñëw ci taxi bi maa ngi lay déglu émission bi naaj ma ko jot na ma ne ko Moustapha Diop sa xarit méjom nee na su góorgóorloo yu su ëllëg mën na ko dénk yëf yi c'était en 2009 mu jël téléphone am ci saa si woo Moustapha Diop ba Moustapha di 2STV mu paas ma Moustapha wax ak moom Moustapha ne ma ma ne ko soo góorgóorloo Youssou am na lu muy ubbi yow la koy jox mu ne ah ma ne ko waaw si saa si Moustapha ne ma lan nga créé ma ne créé naa émission bu tudd Firi Gént mu ne ma yóbbu nga ko Beyza ma ne ko waaw yóbbu naa ko le 28 mars mu ne ma lundi na nga ñëw 2STV lundi ma dem 2STV bi ma demee 2STV Euh, déposé ko fa woo ko ne ko déposé naa ko si bunt bi mbiru télé bi ma demee toog deux jours mu woo ma ne ma jotu ko après affaire xam naa mu ne ma jëlaatal yëf yi nga indi waxtaan ma ma jëlaat yëf yi fekk mu génn mun a ma gardien bi demal si gardien bi ma paas ko téléphone mu ne gardien bi téyel ma dossier boobu mu ngi ma seetaan Moustapha Diop ñu dawal 2009 dawal ba 2010 ci biir 2009 bi Moustapha quitté ma woo ko téléphone mu ne ma nit ku jub la mu ne ma ah man am na fu ma war a dem mais am na ku ma remplacer ki ma remplacer mooy Ousmane Cissé jëlal téléphone bi nga woo ko ma woo Ousmane mu ne ma may ma fi ak 15 jours nga waat ma ma lijjanti bagage après nañ déggowaat sa àjjuma si guddi ma dem télé ma ne Oustaz yëf yi tàkk na Youssou day am télé te Moustapha koy yor. bul yàkkamti bu def dara télé Youssou Ndour lañuy dem c'était en 2009 télé ba ubbi ñu dawal ba yëf yi ubbi Moustapha Diop ànd ak Youssou Ndour Youssou Ndour bi télé bu ubbee dafa ne day wër tele yëpp nuyu directeur yi delloo leen jukkal pour wan leen ni am na lu bees lu ñëw Youssou dem boobu Babacar Diagne mooy directeur RTS Youssou ñëw ak Tafa Diop Tafa Diop sol benn daim marron costume de moro génn télé vingt heures si saa si ma jël sama téléphone woo Oustaz na ko jàppal sa télé mu ne ma man ne ko kii nga gis ni mooy Moustapha Diop yëf jot na mat na ñoo ñoo nga TFM ok donc soo xëyee suba dinaa woo Moustapha ñaanal ko yaay mag nag maa ngi sa ginnaaw su ma paree dinaa la jox numéro bi nga woo ko bi ma xëyee suba ci laa woo Moustapha Diop ne ko nag yëf yi du man kese am na ku ma ko bokkal oustaz moo jël téléphone bi woo ko ñu dem ba ci kanam après déggatuma ko mun ne moom la ñu woo moom moom mu jiitee TFM juróom-benn weer après man si laa ñëwaat TFM. maa ngi ñëw TFM le 27 mai 2011. 2011 2012 2013 ma arrêté parce que xam nga télé boo lañ ca nekkee ak mag ñiy seetaan ñooy ñoo leen di jaxase. maa doon présenter juróom at ñu ñëw télé ñu ne ko bu bul nangu booy bi présenté parce que il parle bien macha allah bi ma ñëwee mu ne du ma présenter ma nangu toog comme invité pourtant je suis le concepteur 2011 2013 nit ñi ne ko waxam si waaye mu toog nga def ko yow kese mu def une semaine ñu war reprendre moo ma ne ma toogal ma toog parce que kilifa la mais gëm naa ne damay dellu. waaw